petitions IEC over borrow states at Mankamankunda. The opposition GDC National Assembly member for Jimara, Alaji Sow, has written a petition to the IEC expressing concern over President Barrow's decision to stay in Mankamankunda during his campaign tour, arguing that this could lead to clashes between GDC and NPP supporters in Jimara. The letter seen by the media quoted NAMSO as telling the IEC, I am writing to alert your office to the security concern of our campaign team. I want to bring to your attention that President Adam Barrow and his NPP Tour party are planning to be based in Mankunda from the 22nd to 25th March. These days are already approved by the Independent Electoral Commission as a campaign schedule in the same area and elsewhere in the constituent and we would be using the highway where the president house is located on a daily basis. We fear that our supporters may be attacked or provoked by NPP supporters in or around the president's house on the same road. Mr. Sow also copied similar concerns to the governor, the regional police commissioner, and the inter-party committee. When contacted for comments on the matter, Mr. So elaborated that he is raising the alarm here because they have experienced that whenever the president is based in Mankamankunda, his supporters would provoke us and I am alerting the Independent Electoral Commission, he said. waaw nag ñu comme ni ñu ko waxee rek ñëw nañ ci xibaar yu Gambia te muy xibaari politique te xam nañ ni nag politique nag lu ne ci coow lay dooree waaye nag comme tey bés dafa alaa daw mi ah macha allah tey suñuy wax du bëri tey tuuti la ñuy compati rek ci black bi jëlal Um, definitely um, komin kaka ñamin doron a ah, bina kibaro musical ye a ah, mimɓe ah, dandim a dandin politique ola karola a ɓota mole bulo kono mi yalam komin ko a gdc um, national assembly aspirant candidate olen um, a mimɓe base tundo kamin ka fotulamaye komin ko jimara ñin uh, ake information o di ñin uh, npp molla anin uh, IEC uh, the Independent Electoral Commission buruka itandila komin ko uh, NPP mo mol ando ngai president baro faran do fo jele pour ñing ife ife kato dango beke ñing buruka je komin ko ito la campaign period o mim mo am um, ñing may karo tilim mo anin flati kata fo ñing tilim mo anin luluti dimara tundo kan ñing pour MPP nkol isakato dama beke ikana ta nyeng uh, manka mankunda maso ngala because ni one thing asa fiti no na fi no le a uh, nyeng ye mol la mol kan oto mo fenna ti miyala ko min ko a uh, ni atara wala be kairo sabatin de la nyeng a nyeng wotundo la ngamera IEC nyanta pour ka step ta jele queen girl yo sai sanga waaw kañ tey nag ñëwaate nañ ci politique waaye nag mbir mi dafa xaw a ala daw mi ndax man gis ngeen suma baatee coin bi yëpp sañ sa tey barke yonent bi ki ñuy wax Aliou Aliou Niang honorable Aliou Niang sax lay wax. honorable Aliou Niang borom borom ñu. óol yu suma broda ma ne suma broda bu baax bi. loolu la demee moom itamit mu ngi ñuy topp ci li nga xamante ne moom mooy face bi. mu ne happy birthday beautiful sister Black Queen. thank you brother I appreciate it. mu ne enjoy your day 100 percent. <laughs> I will. waaw macha allah loolu rek li muy li muy mooy dëgg-dëgg ñun ñi nga xamante ne ñu ñuy topp di ñu seetaan ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ah, am nañ yëg ci li nga xamante ne. ñu ko bëgg nañ tamit li def. Aliou sa dafa baax kon nag. yow black dundal lu bari loo dund doyul waaye black sax sañse lan la black xanaa papa daama jaar fii xoolal lii dama ko def kii black <laughs> <laughs> ah. thank you ma ne lii nga bés bi moo waral ma ne bi moo waral du ah, bu ah, ñu nga di waxtaan si mbir boo xamante definitely um, foog naa ne su fekkee ne um, the um, nas uh, aspiring national ca ca uh, candidate member uh, ku tudda Alhaji Sow mm-hmm. dëkk Jimara moom daal xam lu mu wax si kàdduwam bi xam nga dafa bugg pour AIC mm-hmm. gars ñu jël step pour ensone comme xam nga bu ñoo ooyee um, NPP mm-hmm. pour gars yi xam nga ñoom def seen campagne à Jimara for them to stay put you know away from that area because